yàlla ci kàttanam may ñu bés ni ki tey ñu daje ci assemblée générale ci jàppandalu madam Diakhaté bu DRDR ci jàppandalu ñi nga xamante ne ñoo nekkoon suñuy invité ñu taxawal ci ay kuréel yoo xamante ne mooy tax coopérative bi nga xamante ne moom la ñu taxawal euh, mën a jëm kanam. muy conseil d'administration de 12 membres dont le président Fallou qui bi nga sur le terrain en matière d'agriculture et d'élevage am conseil d'administration bi nga xamante ne euh, ci njiitalu euh, Idrissa Doumbouya moom le léppam ci wàllu développement léppam ci wàllu doxalin soqali li nga xamante ne moom mooy suñu tund wii di di di Jobaas di am mbégte bu baax a baax ci ni yëf yi demee macha allah woote ñu wuyu si la membre yëpp à l'écrasante majorité daal di de def la déplacement ñëw fekki liggéey bi ñu def ko ci ay ci mbokk def ko ci jàmm def ko ci lépp loo xamante ne mooy wane ne ñii nit ñu engagé wu lañ nit ñu taxaw lañ pour li nga xamante ne moom mooy lileen leen wër muy. wàllu jaww ji wàllu agriculture wàllu élevage bi ñu war koo mën a moderniser war koo mën a taxawal ba nga xamante ne tund wi dina soqaliku commune bi dina soqaliku Sénégal dina soqaliku ci loolu ñu répondre à l' de ministre de l' agriculture yi nga xamante ne macha allah mi ngi taxaw di wax ne na communauté yi na coopérative na agriculteurs yi na éleveurs yi daje ci ay regroupé wu ci ay coopérative mën a liggéey mën a am jàppandalu état bi mën a am jàppandalu coopérative yi ci loolu la ñu taxaw ba taxawal coopérative boo xamante ne ñu ngi ciy woo ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci jobaas ñëpp ñoo xamante ne ay ay agriculteur lañ ñëpp ñoo xamante ne ay éleveur lañ pour ñu mën a ànd bokk liggéey pour soqali suñu gox soqali suñu bopp soqali Sénégal soqali suñu commune bii nga xamante ne moom rek lañu bëgg te moom lañu fii la ñu dëkk mënuñoo dem feneen te mooy tax li nga xamante ne mooy mbëkk mi tey jii nga xamante ne actualité la tey jii ñu mën fexe ba mu jeex fi tàkk suñu zone bi jeex tàkk ci commune Diobass jeex tàkk ci Sénégal jàpp naa ne baykat yi bu ñu fexee am jàppandalu état bi am jàppandalu commune yi ci wàllu suuf ci wàllu ndox ndax ñi ngi wax fi mu toll nii ci autoroute de l'eau nga xamante ne tey jii bëgg nañu fii nga xamante ne mooy Diobass ñu indi ko fii pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk war a mën a taxaw di bay nawet di bay noor ndax mbay moom bu yemee ci bay dundee rek doxul dundal ba pare man di jaay dundal ñeneen i ñeneen i communauté ci loolu incha allah ci la coopérative war taxaw war a moderniser léppam war a taxaw léppam pour lépp mucc ayib Sénégal développé wu Sénégal jëm kanam jërë ngeen jëf. salaamaaleykum waa Jobaas info ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen aussi ci seen teewaay ci ndaje bu mag bi di assemblée générale constitutive biñ doon taxawal tey jii fii ci Nafar mu lëkkale ay dëkk yu environnement yu nek ci côté yi lu ci melni ne ay mbojeen ak euh, yenen dekk yu yu ko wër wa ñu def siège bi fii nii Nafar tay mo ñëwoon fi téwal fi ministère de l'agriculture agriculture euh, téwal fi aussi euh, directeur Abiboulaye Sidibé mi nga xamni mom mo euh yor direction bi wa man ma madam madame Diakhaté di tudd Aïssata Wele di madame Diakhaté Nek chef di bureau régional des sociétés coopératives euh, tay mom comme niñ ko waxé sank rek wax yalla ma sha allah euh, assemblée bi jaar na yon ni mu amul xëccoo amul xiiroo amul euh, def nañ ko ci commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yalla sunu borom di sant mbolé membre yu fi téwone yépp wax fa deug yalla sen téway rafet woné ka ni ñom ñëpp eh, farlu nañ ci taxawal kurel bi di leen ñaanal yalla rek eh, ñom ñëpp eh, kenn ku ci nekk gis ci euh di féliciter aussi président bi nga xamni ñom ñoko tabal seen bop muy ki Mbodj dekk ca wa ñom ñoko tabal sen bop tabal sen bop membre CA yep nga xamni au maximum mu ngi tollu ci 12 membres tabal sen bop aussi li ñi wax euh, organe conseil de surveillance bi aussi mu ngi tollu ci juróomi nit ñu waxtane ko ba euh bu ko defee rek kon ñuy ñaanal président bi yalla na yeen bi oyof ñaanal coopérative bi aussi mu am ndam am réussite ba kenn ku ci nekk gis ci am ci lu kawé sa ñort di len gërëm di leen sant wasalaam jotay tay bi li waral moy toog dafa xewi ñëpp jóg nañu kon nag dañoo war a bokk ci ñu jóg ndax ko gis ku ne dem buuxante jëfi jàmm toog ci say fu moo gën loolu mooñ fi toog la tax a toog tey jii te léegi fi ne nii xale yaa ngi daw di mbëkki gaal gi xale yaa ngi daw dem Dakar te ñun am nañu côté bu féex am nañu suuf am nañu poste boo xam ne mën nañ faa toog suturlu ba suñuy doom man fee def suñuy sët loolu moo ñu fi bàyyi moo moo ñu fi taxoon na daja tey dañ ko doon nag dañ ñaan yàlla mu am réussite am jeexatal waaw di soññ ñëpp nag góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñëpp ñu ngi leen soññ ndax sama góor ga dara wax naan gune kese doyuñu ma magi kese doyuñu ma ndax mag kàttanam jeex na waaye am na lu mu xam loo xam ne gune xamu ko gune tamit dese na doole am na xel moo tax kon nag ñu ngi woo ñëpp di ñaan yàlla lii ñu société yàlla nañ ko yàlla sàmmal yàlla nañ ko yàlla oyofalal ba yàlla bu yaakaar tas borom Kazu Rajab bi nga xam ne moom la ñu jiital nag teg ko ci suñu kanam yàlla na ko yàlla yombalal lépp ba barkeb sëriñam dal ci moom ci lii ñu ko la tey ci naafaar gi ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jéggulu nag bu wér a wér kàddu yi di rafetlu tamit jotaay bi di nuyu tamit ñi nga xam ne teewuñu fi te mébatoon nañ fee teew muy kilifa yi ñu fi jiite ñëpp ku ci me ak ki fi teewoon di sëñ Mbàkke Ngom sëñ Ibrahima Diouf tamit ñu ngi koy sant loolu di ko gërëm ak ñi ñu bokkal groupe bi yëpp waa moo Modou Fooba ñoom ñëpp Corofal ngi fi ak Ousmane Ngom ak ñëpp kay ñu ngi sant ñëpp di jërëm ñëpp di jéggulu kàddu jërë ngeen jëf di am mbégte lool ci bés bi ngeen ñu woon nii ñëw naa faar def ay enquête wax dëgg yàlla ci jobaas agricole bi ñu inscrire nii ñoo ngi ci am mbégte ak contentement lool ñu sumb ko ci bisimilah àggale si alhamdulilah rabil alamin macha allah groupe bi commission bi ñi ñu tàbb yëpp moom kontaan nañ ci ñoom am nañ ci ñoom mbégte te ñong leen di rafetlu bu baax te di ñaan yalla yalla katalal ñu lepp matalé lepp ba lepp luñ ci bëgg rek yalla defal nako ci barke Maulana salam ñi ngi euh, jaajeufal madame Diakhaté mi nga xamni lu yàgg ñong koy dégg ci kurel gi vraiment mu ñi tété di ñi gindi ba bis bi tay su yombé ban aksi ci fi grâce à mom mi ñi ngi jaajeufal ku melni ni ta Mamour mi ak équipe bi mu andalon Pakala ak ñi nga xam ni jamono bu nee ñoom ñoo doon jël seen temps ak temps temps ni mu seere seen alal lépp euh, guddi ak bëccëg ñoom ci taxawaay bu am solo ba am tey jii daal di am kon ñu ngi leen di jaajëfal. naaw bu ñu mag ñi ñaanalee ñun ndaw ñi ñoo ci des naka lañ ci dese nag muy lu mel ni tey former coopérative boo xam ni mag ñaa ngi ci ndaw ñee ci ndaw ñee ci ëpp ndax loolu suñ ko waxee mooy ëllëg di si jóg xañ na du yomb mag lu mel ni dem tol wala lu mel ni def lenen ak lenen lépp loo xam ni jëf la suñu ko jëfee mu ñeel coopérative bi engagé wu nañ ci jëf ko ba mu jeex suñu domaine nak agriculture la suñu borom dogal na am na luñ ci xam liñ ci xam dinañ ko indi à 100 pour cent wala 200 pour cent luñ ci xamul fu mu mën a nekk lu mu sori sori sori am nañ yéene jël ko andi ko fii ko defee ñu bokk ko ak muy ginnaaw bu ñu jaajëfalee ñëpp dañuy wax ni. jamono dafa am fu mu toll euh, dañuy faral di wax ni jóg wees na sax la ñuy wax ndax boo xoolee mbooleem entreprise yi nga xam ne entreprise agricole la nekk fii ci réew mi fi ñu dooree mooy ci lu mel nii lu mel ni coopérative boole seen i doole moo xam tey su ma fa ma nekk laay mën a wax muy Sénégal ku ne dégg na ko ci euh, ci réew mi mu nekk fële Sénégal bi doog a ñëw fii ci lii ñu commencé nii ñoom ci lañ doore def forme coopérative dama dem ba nga xam ne lu mat neuf mois tey mën nañ ko dundal Sénégal ci lu mel ni pomme de terre wala oignon fan la Inde ne ay junni junni junni junni kilomètres ñu bàyyi ko fa ñëw fii ci suñu réew suñu suufu réew suñu ndoxu réew suñu ndawu réew récolté fi ay milliards jël ko yóbbu Inde ñu ñun di xool pourquoi pas ñu mën a xeex loolu jóg jóg ci euh, jël suñu suuf liggéeyal ko suñ bopp mën a téye suñu autonomie. kon dama naan jot na fa ñu doore nag mooy ci coopérative coopérative bi nga xam ne mooy coopérative Diobass Est ñu dem ba am ay junni junni hectares yoo xam ni ñun ñoo koy jël gérer ko suñu bopp waxuma sax biir réew mi Afrique waa dama naan adduna wërngal këpp fu mu maa doon suñu produit dem fa te lu mën a nekk la ndax man maa ngi bay loo xam ne ñu ngi koy jël di ko ba Chine te yaakaar naa Chine bokk na ci gox yi gën a sori ci adduna bi te ay doomi réew ay doomi waa Chine ñoo ñëw di ko def fii suñu réew comme ni ma cité woon sànq indien yi wala leneen ak leneen kon dama naan jóg jot na maa ngi soñ sama bopp di soñ dolli soññiwaat waat ah, ñëpp mu des leneen la ci des muy àdduna dafa toll foo xam ni képp ku bëgg a dem te uti woo xam-xam da sonn waaye doo dem ndax boo xoolee na ñam maam daan béy démb ak bërki démb takk ay mbaam ay fas yor ay machine topp ci amatul jamono dem na ba toolu foo xam ni lu junni nit daan bay tey kenn nit mën nañ koo bay ma sàcc ci wax sànq li euh, secrétaire général wax toog muy dox mën nañ ci àgg fii ma toog mën naa fee toog déclenché sama machine yu nekk ca waalo ci sama portable bii kon jamono dox na.